comme niñ ko baaxoo di def saa su nekk président assemblée nationale woo député yi ngir ñu saytu ñetti projet de loi jëm ci ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram waaye li ni mujj ci ay coow. d'accord d'accord mais la prochaine fois mais vous avez le droit de s'inscrire. Non, non, du ma la nuyu du ma wax ak yow bokkoo ci nit ñi toogal te nee nga da dem mag yàlla na nga gis kaaba ga ndax bu yéggee na yegg nga yow dana wàcc da kaaba ga day daw yërëm naa la de sa njaboot gi député yi fari ci Yewwi Askan Wi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci xew-xew yi nga xamante ni moo xew fii ci senegal situation bi xew personne d'entre nous euh, bu jàppee ne mën na ci génn sans pour autant laisser ses plumes ñun ñëpp ñu ngi nax suñu bopp. nañu doon des responsables. député yi fare ci Benno Bokk Yaakaar itam di xamle ni ñoom ñoo ko waral. kër nit ñi ngeen di taal day takk yéen ñëpp xam nañ fu ngeen dëkk. su ngeen bëggee ñu dëkk ci jàmm ñu dëkk ci jàmm su ngeen bëggee leneen ñu fekk leen ci. ñu doon sàkku ngir ñu daal di dakkal yile plénière ba jëmmi jamono ndax situation dëkk bi ni mu mel waaye ñu lànkal leen ko tax ba ñi nga xamante ni ñoo fare yeewi askan wi daal di yeeweeku. seetlu nañ ko mbedd yi tëj na commerçant yi jaayatuñu ñi seen boutique yi ñu ngi yàqu loolu lépp bu dajoo nañ leen nañ ko toxal ci beneen bis ñu gën a dal. li ci sunu dënn yi ci loi bi ñu génn ko waxtaane ko ci waxtaan boo xam ne bi bu ñu neexee nañ ci werante mais bu ñuy tënk nañ tënk loo xam ne njëriñu askan bi la lii de lañ ñu bañal comme bañal ngeen ñu ko nag ñun danañ dem suñu yoon lañu doon xalaat dégg ngeen ñu ko mais comme bañ ngeen ko danañ dem suñu yoon xajal leen ngeen def leen neex lii la woon